ëpp na at bi ñu tàmbalee dépôt yu kart carte d'identité biométrique yu CEDEAO yi ñu bari ci askan wi di xamle ne bindu nañ waaye ba tey jotaguñu ci pièce bi. déedéet jotuma ko ba ah moo ma jaaxal dem naa seet ñu ne génnagul ah affaire carte d'identité daa woo xam naa compliqué na moom ndax dëgg yàlla ñu ñu war a jot seen carte d'identité jotuñu ko. Euh, non dëgg yàlla non man presque daaw bu ñuy génnee carte yu bees si laa déposé mais ba léegi génnagul dem naa fa minti fa laajte ñu naan ma génnagul génnagul. boo demee ci sous préfecture yi nag ay junni junni carte ñoo nga fa waaye seeni boroom ba tey jël ñu ko. carte yi euh, dañ si am ay jafe-jafe seet nañu am na lenteur si retiré yi le pourquoi nag ñun ñu nga xamante ne ay pàtt nañu am na loo xamante ne ñoo ko ñoo ko liggéey. mooy maanaam benn communication benn sensibilisation pour que nit ñi dem jël seen carte mais man yëg naa ni ba ma demee ba seetam ay représentants di leen laaj euh, carte yi ndax mi ngi dem mais yëg nañu ni nit ñi ñëwuñu jël seen carte le pourquoi nag ñun war nañ koy war nañ jàngat loolu lu lan la. citoyen yi di xamle ne jël nañ seeni carte d'identité ba noppi bésu vote ba dong la ñuy xaar. waaw man jot naa sam bos alhamdulilah maa ngi sant quoi jot naa sam bos fas yéene voté waaw jot naa si sama carte. lu yees benn weer dong jot ci jongante tabub njiitu réew mi askan wi ñu dajeel di ñaax seeni naataango ngir ñu dem jëli seeni carte d'identité biométrique ndax ñu mën a accomplir seeni devoir citoyen li mu leen di wax moo ñu jëli seen carte ku nekk voté ki nga bëgg votel ku nekk votel ki nga bëgg votel si jàmm ak salaam. mooy ñu dem jëli seen carte parce que loolu vote bi moom devoir civique la.